talaata juróomi fan ci weeru août atum 2014 mbokki teewlu télévision Futur Média bismillah ci xibaaru digg ba bëccëg bi euh, ponk yi ci gën a fës procès bu Karim Wade daañu ko wëyal fii waxtu euh, ba toftal ay simili lu jiitu loolu nag euh, metre Madické Niang kenn ci ñiy layal Karim Wade àddu woon na nag lu jëm ci procès boobee ndax nee na procès bi moom ku jàpp ni tàmbali na rek xamal ni tàmbaleegul ndax loole faw nag ñu yëkkati jafe-jafe yi nga xamante ne boobu ba léegi bi ñu def leneen ci wàllu xibaar yi euh, muy Macky Sall daal di nay euh, dàq professeur Malick Ndiaye moom mi nekkoon conseiller ca wetam daal na koy dàq nag loole nag euh, mi ngi ko fésal ca fële nga xamante ne ni kon fa la nekk dàq googu laata muy dem sax ca New York la ñu wax daal na yëkkati yooyee kàddu waaye loolu rek mi ngi am gannaaw livre bi nga xamante ne nii moom génne woon na ko muy professeur Malick Ndiaye fan la république du Sénégal jëm ca biir livre boobee nag mu cay wax jafe yi nga xamante ne nii nguuru Sénégal koy jànkonteel euh, jafe euh, jamono yi lu jëm sax euh, ci téere boobee kii di Wal Joojo njaay moom yëkkati na ci ay kaddu moom bokk ci partie civile moom nag nee na kii di Malick Ndiaye moom moo wut ab dàkkam daañu wax ci leneen ci xibaar yi muy askan way yeewoo ci Grand Yoff ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe li ko waral bokk na nag ci jaaykatu taabal ya nga xamante ni ña nga foofee ci seen barab yooyee sonal leen lëcc ci loolu nag daal ba ñuy sàkku ñu indi leen ci saafara nu mu gën a gaawee ndax lu jëm ci woto yaak ñay dox sax euh, mënatuñoo dem fenn ba mën a euh, dox seen soxla daal nu mu waree daañu addu itam euh, ci jafe-jafe yi nga xamante ne bu weesoo paysans yi ñii nag di waa càmm gi ñu ngi koy jànkonteel jëm na nag ci taw bi nga xamante ne ba nëga ni wàccagul ci Sénégal ndax ñoom sonn nañu lool ngir seen jur gi dund sax faaw ñu génne koppar yu baree bari mbokk ak xarit ñu seetaan kon lii mooy ponk yi gën a fës ci xibaar yi yaatal geeg faram-fàcce gi nes tuuti lay doon. jàngeen jëf euh, ci ànd beeg euh, télévision Futurs euh, Médias ñu di ko tàmbali ak procès bu Karim Wade dina tàmbali bu ñaari waxtu jotee ba tegal fanweeri simili lu jiitu loolu nag ay avocat yu Karim Wade doon nañu àddu lu jëm nag ci tribunal bi kon ñu dima wax ni kon Chérif mi ngi en ligne Chérif Dia ngi lay nuyu. fay naa la Fatou euh, Kiné Chérif euh, ndax mën nga ñu wax euh, fan nga féete foofu ndax xibaar bi maa ngi koy doog jot mën nga ñu wax fan nga féete ak ci lan nga yëngu jamono yooyu. waaw ñu ngi ci salle d'audience bi maanaam salle bi ñu war a amale procès bi alxames ba léegi fii nag ni ñaa tàmbalee ñëw daanaka sax léegi tey salle bi fees wante nag ñi nga xamante ne ñooy avocat yi ak ñoom Karim Wade min waree àtte ak ñeneen ñun tuumalandoo ak moom. yegseegun fi ndax li ci des nag xaw naa takku tuuti war naa toll ci juróom-ñeent fukki simili ndax wax nga ko tusbaar bu demee ba toll ci fanweeri simili yooyu sax la ta la àtte bi tàmbali ba tax na daal euh, assistance bi rek maanaam nit ñi nga xam dañoo ñëw ngir seetaan ñoom rek ñoo fi ñëwagum fii ci tribunal bi mante am wante avocat wala àttekat euh, yi ak euh, procureur beeg ñoom seen kenn ñëw gu fi ndax xaw naa des tuuti nag fàtki ne looloo fi am bu dee ci biti nag euh, nam daa takkoo ci nit ñu daa rang ak yooyu gisuñ ko fi alkaati rek ñoo fi nag comme nam daa amee daal di encercler euh, palais de justice bi ci wàllu kaaraange ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa GMI ñoo nekk ci biti ci biir gendarmerie moo fi nekk ku ñëw boo wanee say carte bu fekkee ne da ngay seetaan boo wanee sa carte d'identité gars yi bàyyi la nga dugg bu fekkee taskatu xabaar nga da ngay wane rek sa carte presse ñu bàyyi la également nga dugg euh, fii nag dafa am xam nga démb ba léegi coppite dafa am pàcc ndax uh, ni ma la ko waxee tribunal tribunal bi dafa rëy dafa amoon uh, benn tribune ca kaw tribune boobu nag mayatuñ kenn mu mu toog fa ñëpp ci suuf lañ toog ndax uh, li fi amoon ko nag alxames ak mumbaay beeg caaxaan yi loolu nag moo tax démb ba léegi mbir mi dafa am ci dal léegi dugg nañ wax dëgg yàlla ci wàllu procédure comme ni nga ko waxee ci say titre ndax démb liñ seetlu mooy avocat yi layal Karim Wade fi ñu sukkandiku mooy nee nañ lii di cour de amul benn a ngir atte kii di seen client ndax moom Karim Wade ministre la woon fi ñu ko war a atte mooy haute cour de justice wante nag argument yooyu ki fi teewal euh, ministère public di parquet spécial Alioune Ndao ak kin toftal ci moom di Antoine Félix Diome di noonu ko wax dëgg yàlla am indi ay argument ñoom it yu wér weddi lépp loo xamante daal avocat Karim Wade yi teg nañ ko ñu lay jël ko sànni dinañ également waxaat ci ambiance bi am ci tribunal bi ak avocat yi xam naa sax euh, dégg ngeen coow li maanaam ki nga xamante ni mooy yilif avocats yi di bâtonnier de l'ordre des avocats génne na benn communiqué moom it di dànkaafu avocats yi ni ñu waxee daal ku nekk waay jóg wax di organiser ay euh, conférence de presse ak ñoom seen liñ jot daal communiqué bi li mu ñu waxal daal mooy kii di maître Ahmed euh, Ka nga xamante ni moo jiite ordre des avocats nee na loolu moom dana dakk te bépp avocat daal bu respecté wut léegi bala ngaa def conférence de wala ngay wax nga daal di koy tàggu moom dina jël ay daan ko sa kaw. Euh, kon Chérif Dia ñu di ko jaajëfal bu baax ni ñu ko waxee woon ci ponk xibaar yi euh, procès bi dina tàmbali fii euh, waxtu bu tegalee fanweer yi simili Chérif Dia moo ñu nekkal foofee ci tribunal maa ngi ko doon wax léegi lu jiitu loolu nag avocat yu Karim Wade ñoom àddu woon nañu ci li nga xamante ni noonu la cour bi doxalee ci dakkal bépp requête boo xamante ne nii ñu ngi ko doon jëmale ci ñenn ci kaw avocat yi ñooñu nañ di layal Karim Wade rafetlu nañ ko bu baax a baax di xeex ba wane ne nag CREI bi nga xamante ne moom la ñu teg tey ngir mu àtte euh, Karim amul ci benn sañ-sañ te amul tamit compétence ngir àtte ko di sa ci leeral. poñ bu njëkk bu avocat yu Karim Wade yëkkati aju ci dàq gi président tribunal bi dàq exception bi maître El Hadj Diouf yëkkati woon jëmale ko ci avocat Karim Wade yi nga xam ne dañ fi nekkoon ministre te waru ñoo mën a contre état ci procès. défense bi jàpp ne loolu ndam gu njëkk la. ku nekk am nga sañ-sañ jàpp ko ni nga bëggee man ci li ma jàpp mooy ba ñuy génn ci ëtt àttekaay bi keroog euh, ñëpp jàppoon nañ ne xëy na ci ñi nga xam ne nañu layooy Karim Wade te mu am ci ñeent ñoo xam ne ay jëwriñ nañu woon suñ ñëwee tey dañ leen naan génn leen ci mbir mi ah, ñi nga xam ne ñooy àtte nag bi ñu ñëwee dañ ñoom daal tegaluñ leen dara loo xam ne mën na leen may ñu àddu ci kaw loolu. xëy na loolu tekkiwul nii la ñu wax am na wala amul waaye xam nga yoon moom dafa am li naan forme loolu moom moo jiitu maanaam mbir soo koy wax dafa am foo koy war a jaar yoon nag su fekkentee jaaroo ko fa nga war a jaaree du la ci tontu. beneen poñ bi jëm ci competence du tribunal bi ci àtte am Karim Wade am déet avocat yi wax ni dinañ ci indi tontu bi war. li ci des nag mooy dugg nañu ci beneen ponk àtte maanaam pour xam ndax ëttu àttekaay bi am na sañ-sañu. atte mbir mi wala añu ko sañu atte ko euh, wax jooj nag dañ koy soog a tàmbali rek donc dafa nekk wax joo xam ne ci kaw kanamu attekaay bi nañ koy yeggalee euh, ñun am na nuñ ci wax ni ñu jàmmaar lool am na ñu ci jot a wax am na ñeneen ñu ci bokk waxaguñu te yaakaar nañ nañ tontuwaat donc avocat Karim Wade yi ñaawlu nañu nag yenn jafe-jafe yu ñenn ci askan wi amoon ngir yegg ci saal bi ngir seetaan audience bi di sa prera maître Madické Niang addu tamit euh, ci leneen jëm na nag euh, ci tribunal bi euh, ni mu lankale waa parti civile bi ni ñoom amuñu sañ-sañ wala compétence layel ki nga xamante ne rek moom mooy Karim Wade kii nag di ma di Niang nekkoon fi jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon daal dinay jàpp itam ne Bibo Bourgi anam yi nga xamante ne nag noonu lañ ko indee woon tamit ca tribunal ba ngir nag mu seere fa loolu nekk na loo xamante ne dëppoowul ak yoon lu ñu nag mu naqaru la moom maître Madické ko ak Ibrahima Kane Thierno Laurent Mendy. jëkk bi amoon naa tuuti naqar ndax ni ñu indi woon bibo te bibo feebar ñu opéré ko foofu sama xol xawoon na naqari mais tey ak atte bi nga xam ni am na ñu def at ñu tëral atte bi nii wax ni ñun avocat yi nga xam ne démb dañu nekkoon ministre tey dara mënuñu tee ñu layool Karim Wade loolu man dalal na sama xel ndax doon naa am gàcc gu rëy suñu waxee ni waru leen layool alhamdulilah yoon ñun la àndal te ku liir article cinquante quatre li mu wax dafa leer dafa nii soo nekkee ministre amuloo droit def benn activité boo xam ne liggéey la te mu jublu su dee activité boo xam ni privé la wala activité boo xam ne publique la kon man loo doon agent public doo agent public xam nga ministre mooy kan mooy ki nga xam ni décret la doo signer contrat décret moo lay nommé tey bu leen fàtte ni am na ñoo xam ne benn fan lañ fi nekk ministre gannaaw maître Madické Niang maître El Hadj moom it euh, wax na ci lu nu mel soxal nag euh, wàllu kuur ba nee na nag euh, bu jëlee matuwaay boobee ngir nag bañ a lànk lànkal requête bi nga xamante ni nii moom la defoon dafa di kuur ba jàmm ak salaam moo ko tax a jukk waaye cour ba ci boppam moom àdduwut ci li ñu ne amul compétence ngir àtte kii di Karim Wade kii nag di maître El Hadj Diouf moom it daan nay wax ni nekk na ay wax yoo xamante ne daanaka booy xool tegul fenn ñu teewlu ko moom maître El Hadj Diouf euh, ci waaw xam nga man li gën a bon ci àddina mooy ngay jaay muus surtout ngay jaay muus ñu xam ne dàqoo leen jàng ëppoo leen xam-xam gënoo leen a muus yéen a bokk école bi ngeen jàngee muy muy fac de droit def droit kii ñee di ay procureur yow ngay metre nga bëgg la gëmloo Sénégal loo amu ci naan Idriss Seck ministre la woon au cour de justice Karim Wade ministre la woon au cour de justice mel na li ngeen topp benn la Idriss de détournement deniers publics mooy dañu dafa randal alal réew mi buñ ko dénkoon Karim ne ñu ko dañu la dénk dara nga yóbbu ko déedéet dañ ne ko li nga yore dafa jéggi dayoo loolu mooy enrichissement illicite wala tey boo gisee procureur dum doon mu doxee seen kaw yéen si yéen du ngeen bàyyi ma fen de procureur tey spécial ak ak structure bi dañu doon dox ci kaw gars yi te lu ñu dox rek bu jéere ñu gàccee gi leen di bëgg rek xanaa suñu sax bu ñu waxee xanaa léegi lu ñu des xanaa dañuy dee lu jëm ci dàkkub euh, kii nga xamante ne nag moom moo génne ab téere di euh, professeur di Malick euh, Malick Ndiaye ci maanaam poste bi nga xamante ni ci la nekkoon di conseiller ci wetu nag njiitu réew mi Macky Sall lu jëm ci loole nag njiitu réew mi àdduna ci waaye leneen it wax na ca loolu muy kàddu yoo xamante ni mu ngi ko yëkkatee ca Washington ci sommet ba nga xamante ni moom moo lëkkale États-Unis ak Afrique kii nag di Macky Sall wax na ci téere bi nga xamante ni colonel Ndaw téere boobee daañu tekkaay daan euh, ci kaw kii di colonel Ndaw ndax téere bu mu génnee moom amul euh, sañ-sañu génne ko ndax yoon dafa am lu mu ko may ci fi nga xamante ne fa la bokk ci hiérarchie bi euh, di ci wàllu soldat loole nag mu nekk loo xamante ne lépp daañu ko saytuwaat moom Macky Sall sax yëkkati fay kàddu nee na nag am na l'enquête boo xamante ne door nañu ko ba noppi ndax sax sàkk na ci inspecteur général bu forces armées mu ubbi ab l'enquête ndax téere boobee am na ñu ci leeral mu nekk yoo xamante dénk suñu natango yu nekk euh, foofee ci benn yéenekaay ñu gën ko xam ci voix de euh, l'Amérique euh, leneen ci wàllu xibaar yi ci loolee sax la ñuy des di wax muy limogeage ki nga xamante ni moom mooy Malick Ndiaye ci conseiller bi nga xamante ne nag joxoon nañu ko di jëwriñ ca wetu njiitu réew mi Macky Sall lu jëm nag ci limogeage boobee dañu jàpp ni li ko waral bokk na ci téere yi waaye tamit limogeage am na tamit ay démission ñoo xamante ne tekki woon nañu seen ndombal tànk loolee di firnde nag ni ki nga xamante moom mooy Macky Sall daanaka diggam ak i ñooñam dafa may ay ñagas ñagas Aminata Mbaye Sow ci njàngat li Malick Ndiaye nekkatul ministre conseiller ci wetu Macky Sall limogeage boobu nag ñu ko xam ne ci décret numéro 012 324 bu 1er août 2014 limogeage professeur Malick Ndiaye boobule di indi ay laajte ci diggante Macky Sall ak yenn ci ay conseillers ci pàttali Malick Ndiaye dafa jot bind benn livre boo xam ni def ci dingat nguuru Macky Sall ak ni muy doxalee ñenn gis ne livre boobule moo tax ñu daal di dakkal ndomb tànkam ci ministre conseil conseiller boobule. beneen démission bu indi woon wax ju bëri fii ci Sénégal di démission kii di Jacques Diouf ki fi nekkoon ministre conseil ci wetu Macky Sall ginnaaw bi Macky Sall toogee ci nguur gi daf ko woowoon ngir mu toog ci wetam jàppale ko ci yenn doxali yi waaye ginnaaw at ak lu teg Jacques Diouf daal di teggi ndombol tànkam ñenn ñi ko jege gis ne poste bi mu nekkoon li mu fa doon liggéeyee du dara comparé ak li mu doon liggéey fële ci FAO su dee sax ci waxtu woowule ñu nekkoon présidence ci baatub Souleymane Mansour Diop jotoon nañ wax ni Jacques Diouf démissionné wul waaye dafa jël congé loolu lépp nag di wane ni diggante Macky Sall ak yenn ci ay conseillers am euh, souvent day faral di takk suuf. Euh, beneen démission bu bëri woon controverse Moubarak Lo euh, ki fi nekkoon directeur de cabinet adjoint président de la République moom. dafa ñaanoon neen ngir mu mën a jublu ci liggéeyam bi mu njëkkoon nekk waaye démission boobu la ñenn ñi gis ne ñaawlu ak naqarlu doxalinu Macky Sall ak tamit jëlee gi ñu ko jëlee ci wàllu plan Sénégal émergent moo waral mu daal di démissionné jóge ci présidence de la République ci démission yu bëri yooyu nag Macky Sall jotoon na ci andi ay tontu ginnaaw benn tournée bu mu doon def ci Koweït moom newoon na ñi bëgg liggéey ak moom dañoo war a noppi def li ñuy def ba ñu bëri su dee da ngay liggéey ba pare di génn yenn secret yi mën nga jël say bagage daal di dem sa yoon. Aminata Mbaye Sow bu ñu sukkandikoo ci wàllu joojo Ndiaye euh, kenn ci euh, société civile moom nag nee nag kii di Malick Ndiaye moom moo ut ab euh, dàkkam gannaaw moom it am na ñoo xamante ne jege woon nañu lool Macky Sall te tekki seen ndombal tànk bokk na ci Moubarak Lo ak Jacques jouf wàllu joojo Ndiaye dellusiwaat ci diggante Macky Sall ak ñooñam ñu teewlu ko ak Fatimata Ba. boo moom moo demandé ñu libéré ko parce que il avait des contraintes des raisons personnelles boo jëlee kaaw Moubarak Lo si mu constaté ne dafa amoon seen gis ji seen euh, gis-gis yi dafa féewaloo ndax ni liggéeyee ménguwul ci la laajte ne ci la démissionné boo jëlee kaaw Malick Ndiaye mbir moom dafa dafa dafa dafa doon lu xaw particulier parce que man pour man boo nekkee ci gouvernement y a la solidarité gouvernementale même boo ci nekkul mais boo nekkee ministre conseil d'un président bu fekkee dem nga ba si biir ba nga xam ne seen gis-gis yi bokkatul da ngay démissionner parce que balaa ngay critiquer étant entendu que yooyu yaay conseiller am mënoon na toog ak Macky Sall ne ko monsieur le président mbir mi d'accord ma ci lii nii laa ko gisee lii nii laa ko gisee. sénégalais yi ñoom it euh, joxe seen xalaat ci téere boobe Malick Ndiaye génne téere boobe euh, ñu duppee ko où va la république euh, fan la république bi jëm ci loole nag ñoom sénégalais dañu jàpp ni nag téere boobe daal jaaduwul benn yoon ci di ko génne waaye tamit kii di njiit réew mi yi Sall dafa war a xoolaat bu baax conseil yi nga xamante ni moom lay tabb ci wetam ñu teewlu seeni kàddu Maymuna Ndiaye moo leen taataan. si yoon waruloon bind livre en tant que amoo droit bi na livre di di di di dénoncer yenn yenn yenn yenn secret quoi te état dafa am loo xamante ni dafa am lu mu laaj mais mais Macky du tëb tëb rek dàqu ko waaw loo gis rek toog waxtaan la quoi. Macky Sall du dem sans conseil conseil tamit duñ dem sans Macky Sall dañu gis ne peut-être mu am lu mu leen bëgg def loolu loo xamante ne ñoom gis nañ ne loolu du dëgg wala arrangé wul population yi wala ñeneen ak ñeneen buñ gisee loolu tamit jaral na leen ñu dem. Macky Sall xam naa ni ni mu bëgg liggéey a gars yi nañ bëgg liggéey moom moo du dem waaw danaa manque de confiance yi mi ci biir ko nit ki boo koy liggéeyloo da nga koy jox lépp quoi confiance li lépp lu ci war nga bàyyi ko mu liggéey quoi mais doo ko doo ko def dara bare nga nekk ci ginnaawam di ko bunt xatal quoi. Malick Ndiaye de man li ma xam ci moom mooy defe naa Abdou Diouf nekkoon na nekkoon na feek moom euh, Abdoulaye Wade nekkoon na feek moom donc Macky Sall ñëw mu ak moom parfois bon damay xaw a ragal parce que nit koo xamante ne tamit ku nekk nga mën a defal loolu dafa yéeme du dëgg donc. kantaa mu Mbarak Lo xëy na aussi demam bi moom la engagé parce que moom moo nekkoon ci biir système bi. war na ko permettre balaa mu jël ay conseil mu xam ñi ñan lañu. Euh, bu weesoo baykat yi ñi càmm ñoom it euh, ñi ngi ci jafe-jafe ndax taw bi nga xamante ne ba nëga ni euh, ñi ngi koy séentu te wàccugul ñoom nag ñoom sàmmkat yooyu la ñu gis mooy seen jur gi sonn nañu ndax jur gi ngir mu lekk faaw ñu jaay ay koppar yu baree bari mu mel ne nag jafe-jafe yi du yem ci benn ndax njëgu yàpp bi seetlu nañu ni cher na bu baax a baax du ku nekk moo ci mën a jot kilogramme yàpp bi moo di mu di jóg mu daal di yooyu ba ay yaxam nekk ci biti nag wi comme ay moromam fi nga xam ne moo di forage yi dund comme ni mu waree nekk na ak jafe-jafe euh, li ko waral moo di nawet gi nga xam ne ba fi mu nekk dooragul mu nekk mbir moo xam ne nga xam ne ñoo di jaay ngooñ ñoom ñoo ci yëg seen bopp. non yéex a taw bi la waaw fi ne nii moo tax ñu sonn ñun loolu arrangé wu ñu sax ñun bu ñu sonn saa ngoon jar mille francs. yooyu xam ne ñu koy jëndee fële Richard Toll mooy fi ñuy kiiyee ceeb bi. say yu mag yi comme yii waaw yii moom ay douze mille lay jar. mais léegi bu ñu ko wàccee détaillé ko moom la ñuy jaayee cinq leneen lu mu jur moo di li nga xam ne kat moo di nag njëg yi dafay daal di yokk mu nekk loo xam ni boucher yi ñoom ñoo ko daal di xamalee waaye ñi nga xam ne ñoo di borom nag yi ñu ne dafa am lu ko waral. yaa nag yi si yàpp bi dafa dem ba dinga ñun dañuy génn nag yi mu ñuy taxaw ay deux mille sept cent deux mille huit cent da ngay jaay ba jaay mbaq yi jaay bopp yeeg yëpp def ci dara du génn da ngay jël ay. millions yu euh, bëri def ko ci naaj yi ñuy perte. gétt nag bu naree dund ci poos une fois dafay métti loolu moo tax nag ñu ne seer nañ waaye seer dañuy dund ci poos rek kuréel bi dañuy dund ci àll bi du seer comme noonu waaye dañoo dund ci poos moo tax ñu seer. jafe-jafe yi nga xam ne la fekk fii ci fora bi nekk na lu gën a ndaw ci li nga xam ne euh, la ñuy dund ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu kenn ci délégué yi. bi moom fu montee fi nga yaakaar mi a mën yem rek ak gan foofu parce que compte bi bare jafe na na. sonn nañu daal xam nga yenn jur yi boo ko yoree pour dundal ko si lënkan bi mooy sa poos loolu day nekk lënkan bi métit lay doon. Eh, ngir xaarandi mu taw eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di càmmkat yi fi mu nekk nag eh, jafe-jafe yu mag lañuy ñuy daal di dund ñoom ak seen i jur. leneen ci wàllu xibaar yi Sénégal jël na ay matuwaayam yépp ngir xeex euh, jàngoro Ebola ndax ba fii ñu waxee ak yéen amul fenn fu ñu ko gis ci biir réew mi ki ko xamle euh, di docteur Abdoulaye Bousso kàddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati ci lël bu ñu doon amal mu lëkkale privé beeg public bi ak waa banque mondiale ñu teewlu ko moom docteur euh, Abdoulaye Bousso di conseiller technique numéro 2 ci wetu jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram Ndeye Ndeye Bousso Mbossé si moo taataan ay kàddoom. matuwaay yooyu la ñu continuer ba léegi parce que bu ñu xoolee bi épidémie bi commencé ba léegi euh, mu ngi yokk ci dëkk yi ñu war soo xoolee Guinée soo xoolee Sierra Leone Libéria toujours am na ay cas bees mais ñun ñu ngi sant yàlla ba léegi amuñu benn cas loolu mooy wane ni quand même def nañ benn dispositif boo xam ne am na efficacité ci région sud bi comme ni nga wax frontière terrasse bi ñu tëjoon tijji ko foofu am na suñu service bi fa nekk yoo xam ne ñooy saytu xool ñuy dugg mën leen examiner bu amee problème ñu am fu leen teg suñu demee aussi si euh, avion yi au niveau de l'aéroport aussi dispositif baa ngi foofu il en est de même également suñu demee ci port Euh, kuréel gi euh, lëkkale privé bi ak public bi ñoom nag euh, ñi ngi boole seen doole di xool nu ñuy gën a suqalee wàllu ko wér-gu-yaram ci loole ba tey ñi ngi amal ay waxtaan waaye waxtaan ñu ñuy mësa amal yépp gisuñu ci jéego bu tax ñuy wax tey ji nag concours banque mondiale dooleel na leen ci lël bi ñu doon amal ngir seet nag yan pexe la ñuy tëral ngir dooleel wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu ci ndey mboosis yi waxtaan bu yàgg la ñu nemmeeku ci secteur privé ak public bu santé ndax lu jëmale kanam la boobule secteur. secteur privé ñu bëri jàpp nañ ne développement suñu dëkk yi léegi il faut pour mu am il faut yu dooleel secteur privé bi rawatina nag ci mbiru santé parce que gis nañ ne jafe-jafe yu ñu am ci mbiru santé public bi rek mënu ko saafara il faut que ñi nekk ci privé bi également dugal ci seen loxo. mais pour ñu dugal seen loxo dafa am ay conditionnalité tey loolu nga xam ne mooy service public de la santé boobu état rek mënu ko doxal léegi état il faut mu wax ak bi. moo tax yi ne dialogue lu am solo la ci mbir mi. lëkkaloo boobu gis nañ ne day jàppale itam financement bi ci secteur privé santé bi. waxtaan boobu collaboration boobu pour mu am il faut mu am xaalis bu ñu ci dugal maanaam projet bu ñuy liggéey donc projet ci projet lañ nekk nii ak gouvernement Sénégal pour liggéey ci mbiru santé boobu et dialogue benn élément rek la ci. am na yeneen élément mais dialogue boobu noonu benn élément la rek si Banque mondiale dina jàppale initiative boobu pour que cadre de dialogue boobu mun a jëm kanam ba tax ne lépp li nga xamee ne mooy mbiru santé di public ak privé bi di ko jokkantool yi mun ko saafara. Abdoulaye Bousso di gis ne bi la jokkalante day yombal liggéey bi ci wàllum yëngu yaramu nit ñi. gis nañu ci wàllu santé bi am nañu ñaari wàll mooy public bi nga xam ne nguur bi moo ko moom ak wàll bi nga xam ne ay nit ñoo ko moom wala ay ñoo ko moom. dañu bëgg nag ñaar yooyu ñu mën a booloo juste booloo ba nga xam ne dina mën jëriñ askan bi parce que ku nekk ci sa wàll am nga ay euh, matuwaay am nga xam-xam am na loo mën a indi te yaa ngi koy def dañu bëgg nag ñu boole leen pour ñu mën a gën a avancer suñu wér yaram taxawal na unité bu ndaw bu yombal waxtaan bi waaye tam ne nañu kilifa yi gi ak politique gi nañ ci dugal seen. Ndeye Mbose si euh, plan bi ñu tëral ci wàllu liggéey lépp aju ci wàllu yokkute ci ndimbaluk UNICEF plan boobee nag am na ay jafe-jafe euh, li ko waral bokk na nag ci yeexaay bi ñu gis nag ci wàllu validation yi nga xamante ni euh, jëm na ci requêtes yi waaye tamit jëm na ci matuwaay yi nga xamante ni jël nañu ko ci wàllug financé plan yooyee ci loolee taxoon nañu nag ñu amal ab ndaje ni kiy démb ngir xoolaat jafe-jafe yi fan la nekk waaye tamit jéego yi fan lañ ko war a fan lañ war a taxaw ngir suqali wàllu wàllu plan travail yooyu Aminata Mbaye Sow Mardien ci leeral. bilan am mi-parcours bi ñu doon amal am na lu bëri lu ñu nemmeeku des na plan de travail annuel diggante ministère de l'éducation nationale ak waa UNICEF ñu gis ne at mi am na ay rëq-rëq yu bëri ñu nekku ci programme boobu lee. maanaam li nga xam ne moom la ñu nasaroon mu kon projet bi ak li ñu ci defagul xalaat na ne tuuti na yaakaar na waroon na gën a bëri. war na gën a yokk rëq-rëq yu jëm ci wàllu xaalis waaye tamit grève inspecteur yi ñu nemmeek woon ci biir année scolaire bi nee na bokk na ci li ko waral ñu ne nañu dafa am retard ci requêtes yi nga xam ne moom la inspection yi def ñu dem ci UNICEF ñi wax nañ ne euh, grève inspecteur ñu collègue inspecteur tam xaw na tardal dara di formation yooyu ñii nee nañu aussi euh, euh, ci biir ñi nga xam ne noonu la collectivité yi mooy mbokk mbokk moomeel yi ñu koy waxee ak communauté yi aussi mooy population yi jur ni ñu waroon taxawee am na lu ci des. lu jëm ci coow 690 élèves maîtres yi nga xam ne dañ leen waroon former ngir ñu génn ñu mën a jàngale ji ñenn ñi ragal ne mën na doon contrainte bu rëy ci wàllu njàngameek njàngale mi ñu wax ci leneen jafe-jafe yi askanu Grand yof di jànkonteel jëm na euh, ci jaaykatu taabal yooyee toog ca yoon yi ñu jaar loolee nag naqalu nañu ko bu baax a baax ndax du woto euh, du koy dox ak sa tànk ku mën a jaarati ca yoon yooyee ndax anam ya ñu fa nekkee waaye tamit la ñu seetlu moo dinde accident ya bari na fa te daanaka li ko indi bokk na nag ci ñooñee ñu occupé ci seen voie yooyee ñoom nag seen naqar euh, dénk nañu ko Nafissatou Sylla Grand Yoff ci voie de dégagement buy jëmale ci route nationale bi fii nag commerçant tablier piéton yeeg oto yi ñëpp ñu nekk ci kaw tali bi li waral loolu nag di ab débordement bu marché Grand Yoff moom tamit juri ay jëya saa su ne. danger bi si jaaykat yi la boole ci ñun civil ñoo xam ne ñu fi di jënd. parce que man mun naa fi romb leneen fekk ma ci comme sama morom mu fee romb leneen fekk ci. danger bu la may parce que tamit maa day taali oto mën laa fekk fii def na ko su dul noonu bu xam nga. yaay perte duñ fi toog jour boo xam ne boo xam ne gisuñu fi accident si si si si si voie bi xam nga dañu ne y' a 1 mètre 50 de de de de de boo xoolee si diggante tali bi nii y' a 3 mètres ou 4 mètres yoo xam ne tablier yi occupé nañ ko en période fête je peux dire que 24 heures sur 24 bu ne boulevard bi mbedd mi dañ koy dañ ni ñu ko fréquenté je peux dire que du matin jusqu'au soir. doo am foo teg sa tànk. ngir dawal ko tu woto yi nag lii lee dañ ko fi war a jëlee. ah vraiment sonal nañu kay. mu toll nii nii ah suñ ko mënoon dimbali ah doo ñu jóge moom mu baax quoi parce que tali bi dafa xat fu mu toll jaay mais fii bii fii jaay tali amu fi raaraa woon mais teewal ñu oto gis nga oto yi yaa ngi gis ni ñu ngi dem ak ñëw kenn yàqalu sa morom. non tiitu ma. gis nañ fi lu nekk fii nit tëdd na biir néegam sa oto fekk ko faray dee moom fu mu jotee danga koy def. askan wi yeewoo ci Grand Yoff nag tey jii la gën a taxaw temb rek ngir rek daal di fay jëlee situation bi le du xuloo du xiiroo du ŋaayoo dañ koy def si tek ak tey il faut ñu rafetal toogaay bi il faut ñu rafetal ko donc rafetal bi mooy ils seront bu ñu par A u Z ils seront déguerpis. bëgg na ci oto yi bés bu nekk voie de dégagement bii la ñuy jël ngir daal di génn Grand Yoff askan wi nag di ñaan autorité locale yi ñu indi ay solution ci ni gën a gaawee. xibaaru biti réew yi dana koy dooree ca Israël Israël nag moom daal dinay wax ni dana daqal song ga muy song ca bande de Gaza foofee lu toll ci euh, junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ci palestinien ñàkk nañu seen bakkan ci diiru ku weer dong ñoom ñaari pàcc yooyu sax waxoon nañu ni euh, daañu dakkal xeex bi mu nekk nag loo xamante ne tàmbali woon nañu ko gannaaw ba leen ko Égypte ñaanee muy dakkal xeex boo xamante ne amal nañu ko diiruk euh, ñetti fan waaye tey ji nag Israël moom nee na li nga xamante ni moom la doon sàkku foofee ca bande de daanaka amal na ko ndax fexe na ba euh, tunnel yi nga xamante ni palestiniens yi ñoo ko fa defoon ñoom fexe nañu ba dindi euh, tunnel yooyee euh, leneen ci wàllu xibaaru biti réew yi mi ki nekkoon soxna sa ki faatu Nelson Mandela nekkoon foofee ci Afrique du Sud muy Winnie Mandela moom nag mi ngi sàkku ci yoon ngir ñu jox ko këruk Nelson Mandela ba nekk ca Kunu ca bëj mu Afrique du Sud moom nag bu ñu sukkandikoo ci ay awokaam yoo xamante ne yëkkati nañu ay kaddu dispatch moom avocat yi wax nañu ne kii di soxna si di Winnie Mandela mi nekkoon nag soxna si Nelson Mandela moom kër googee yoon war na ko koo jox ndax jamono yi nga xamante ni Nelson Mandela dafa nekkoon prison euh, jamono euh, mi ngi fekkoon nag ñi ngi sëy kon tey jaar na euh, kër googu delsiwaat ci loxoom waaye tamit delsiwaat ci ñaari doom yi nga xamante ne ni moom la am ak Nelson Mandela xibaar yi biti réew yi dañu koy jeexalee ak ndaje mi nga xamante nii ma ngay wéy fële ca Washington boole États-Unis ak réew Afrique yi ay njiitu réewi Afrique yu bari nag teewe fa nit ki démb ñi ngi doon waxtaanee ci wàlluk jàmm wàllu kaaraange waaye tamit coppiteeg jaww ji tey ji nag ci talaata ji waxtaan wa dana aju ci ni ñuy fexe ba yeesalaat accord yi ñu duppee AGOA muy jëflante bi nga xamante ne war na dox ci diggante États-Unis ak réewum Afrique yi lu jëm ci jëflante googee nag di AGOA dafa war a jeex at dong ci des yi Afrique yi bëgg nag ñu yeesalaat ko yóbbu ko ba ci fukki at ak juróom nes tuut ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram yi Thank you. xibaaru tàggat yaram yi basket lañu koy euh, tàmbalee ak équipe nationale euh, ci góor ñi ñoom nag démb lañ doon janook taskatu xibaar yi ki nga xamante ne nag moom mooy seen entraîneur Cheikh Sarr yëkkate ay kàddu nee na nag am na yaakaar bu baax a baax ci joueur yi rawta nag ku ci mel ni Sayer seen ndax moom mi ngi woy euh, di wane jaloreem ci tañeex bi ñu teewlu ko ak Abdoul Aziz Kane Mohamed Dieng bu dee phase njëkk bu préparation Lions yi noppalewul moom tey kii di coach bi Cheikh Sarr profité na si pour dégager groupe am. Euh, dama constaté ne depuis 2012 ba léegi ana benn bu fi nekk te noyau boobu chaque année dañuy ñëw te minute nañ bu baax. te bi euh, Malay Ndoye la Mohamed fay El Hadj Malick Ndiaye Vieux Ndoye Mohamed Diop ak euh, Alcés Badji. mbiru Sayer Sène ñu ngi koy waxtaanee ba léegi ci tanière bi médecin bi moom nangu na ni pivot bi récupéré gul waaye kii di Cheikh Sarr xamal na am na lu mu soxla ci moom. fu mu nekk nii ñun xalaat nañ ni que balaa ñuy egg ci euh, cappaandaw gi SAER mën na récupérer donc ñu ngi liggéey ci loolu mu ngi liggéey ak ñun te nangu na liggéey donc euh, sañ nañ yaakaar ni SAER mën na fii ak booba récupérer. bi nga ko woowee tey woo ñu ko pour gërëm ko wala remercier ko mais dañ ko woo parce que potentiel am bi entraîneur mënul jàngale njool da ngay njool mbaa njooloo mun ma jàngal kenn mu njool yàlla moo koy def si nit 2015 doo ko wër si mbedd mi di ko fekk. ok donc man mënu ma permettre ma jël luxe am 2000 km sa SAER am lourd bu nekk ci raket ñaar nit ñoo koy jël ma bàyyi ko ci biti. kii di Malay Ndoye moom am na chance def coupe du monde. avantage bu mu gis nag. mooy vie de groupe bu am importance bi ñu am. groupe bi nii loolu la am loo xam ne dafa important parce que cohésion bi ñu am nii depuis depuis presque 2 3 ans c' est très important ak même coach bi donc continuité bi lay nekk donc pour ñu liggéey avancer. ak tamit yenn joueurs yi complété yi gën a renforcer équipe bi donc je pense que day gën a day tax équipe bi. gën a yokk ay chance am pour mën a dem coupe du monde bi. ca Malaga pour ñaareeli phase préparation yi Lions yi nag am nañ six matchs amicaux yi ñu war a basket Mexique ñaari yoon Lettonie Égypte Espagne ak Koweït diggante fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñeent ci yoru août. football championnat régional cadet daañu ko amal tey jile final bi euh, bu ñetti waxtu jotee lay doon ca stade Demba Diop dana boole Asma ak Dakar Sacré-Cœur bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon euh, kii nag di Dakar Sacré-Cœur kon dana janoo ak euh, Oslo xibaaru tàggat yaram ba tey dañ koy jeexale ak wàllu athlétisme bi nga xamante ni dañu ko décentralisé woon at mi yóbbu ko fële nga xamante ni moom mooy Mbour kii nag Momar Momar Mbaye mi nga xamante ni moom mooy président bu fédération sénégalaise euh, d'athlétisme yëkkati na ay kàddu nee na nag euh, lu jëm ci juróom fukk ak juróomeelu championnat national yi daanu ko yóbbu ci beneen gox fii ci Sénégal waaye tamit daanu jël ay matuwaay am solo moo xam ci wàllu finance ngir gën a gunge athlétisme ñu déglu Momar Mbaye ci micro Cheikh Tidiane ci public bi ñëw fii wone ni vraiment déjà c'est déjà quelque chose de très positif et c'est la première fois aussi quand effectivement ñu décentraliser affaire bi mais ci écho ci athlètes yi ci officiels yi yi ñëpp kontaan nañu déjà ci décentralisation bi déjà ñu ngi envisager pourquoi pas am na ko ko wax ni mais nañu xool pourquoi pas Kolda du ko war a jël l'année prochaine mais initier nañu benn benn démarche xaj na aussi su environnement bi propicé danañ koy multiplier donc mën nañu wax ne bilan bi daal c'est large Momar mbay président fédération sénégalaise d'athlétisme doon àddu ci micro Cheikh euh, Tidiane Dione ñu ànd yër li yéene kaay xëyandoo ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf rampino ràpp ci kaso bi ngir ñaari at yàlla foofee la yoon mujje ak Moïse rampino di sëtub Marie Mbengue bi doon sàllawlu magistrat yi observateur nañu la mu waxoon ba taxoon ñu ko doon ŋawta ŋawte wax na démb lu ko jogati ubbil yéenekaay bi keroog alxames ba ñuy àtte Karim Wade Moïse rampino li mu waxoon magistrat yi moo di dañ leen a guerre du ngeen di magistrat dara réew mi benn sàcc fi am di Macky Sall yéenekaay bi na taxoon ñu jàppoon ko waroon ko àtte démb démb ba ñu ko doon àtte journal bi ñu ak juróom-ñeent ca la ñu ko woolu muy Rampino muy bondé ka tëgale wagg ba mu yegsee janoog àttekat bi siis bi di Henri Grégoire Diop ca la ne ko trouble à l'audience la ñu lay toppee ndax nag ko am déet muy Rampino ne ko ko loolee maa def am na loo bàyyi te xam naa ne yaa ko tey bàyyi ko ndax wax nga ba sottal tuddoo fenn saaga yi saaga mu di outrage à magistrat te loolee la muy tekki moo di du ngeen magistrat yi dara guerre ak mbuxum ngeen di dundee ay anti balaka ngeen ci justice bi ay politiciens yu làqu ngeen nekk lu leen fi kenn ku dul Macky Sall réew mi benn sàcc di Macky Sall ne locataire la fi woon fu mu dëkk da ko luye woon tey mu doon milliardaire li ngeen war a lijjanti moo di fu mu jëlee xaalis boobee observateur nañu ba muy wax wax ja maître Bass bokk ci awakaam dañoo jàpp seen gémmiñ di wax ak moom naan ko boo respecté wul sii sa bopp Moïse Rampino li mu ko wax moo di loolee sama yoon nekku ci bu leen neexee rey leen ma bu leen neexee tëj leen ma ci kaso bi téeméeri at yéenay seet ba saagay yi tëjal leen ma a trouble à l'audience bokk ci tuuma ya ñu koy toppee loolee la ko atte mu des léegi nag outrage à magistrat di saaga yi doon saaga attekat bi Sud Quotidien nañu Moïse Rampino tëj nañu ko ñaari ati kaso Le Quotidien nañu dangam gu mu dangam moo ko ko yóbbee ka ko fa yóbbu ba lii lépp fekk ko fa di Karim Wade ab layom démb la woon mboolem yéen ñu xëy ndol xëy ci dellu si tey Le Quotidien nañu procédure maanaam yëf yi metti woon Sall ak maître Alioune Badara Cissé waru ñoo bokk ci avocat Karim Wade yi loolee cour répression enrichissement illicite wan na ko gannaaw àndu ci ak Alaaji Diouf waaye leneen coow lu ci am te le quotidien dellu si waat ci moo di avocat Karim Wade yi ñoo ne Karim Wade cour répression enrichissement illicite waru koo atte haute cour de justice moo ko war a atte lii indi biccoog mbaalo bi woon démb ca tribunal ba Sud Quotidien yëf yi daa bari lees waxul tribunal ba dugal ci ambulance sampal koy biteel indil attekat bi yéenekaay bi nañu moom bi boo bourgi bi may na ko ñaari fan yoo xam ne du teew tribunal populaire nañu li jot a xewagum ci boobi la la yoo awakay yi ñoo ci amagum ndam maître Alaaji Diouf mi waraloon coow li nañu ci yéenekaay bi di populaire resis beek li mu wax ci ne dañ ko indilul décret bi wane ne ñi doonoon ministre ba noppi bëgg doon awakay Karim Wade ñoo ñe mbirum Karim Wade ak déglu gañ doon déglu ñi nga xam ne ñoo ci laale yéen a kaay bi am nay révélation yu ca feeñ Alioune Ndaw njiital CREI ak Alioune Badara Cissé yéen a kaay bi ci defanti gu sëkk la nekkee woon borom ouvrage la république ne va plus avec Macky Sall Malick Ndiaye Macky dàq na ko xibaar baa ngi ci observateur yéen a kaay bi dañu téere boobee téere baak la mu ci bind di ŋàññi doxalinu Macky Sall li bokk na ci li tax Macky ko ci le quotidien moom mi ñu lu ñu leeral nañu dem leerale ji loolee wax na lu leer ci observateur moom njiit réew mi Macky ay kàddu la yu yéenekaay bi nangoo ci la voix de l'Amérique Macky Sall moo fa séq waxtaan ak ñoom lu aju ci colonel Abdoulaye Assis Ndaw ak téere bi mu bind jëmee ko ci gendarmerie ba cay tuumal général Abdoulaye Fall Macky Sall ne loolee la ca war yoon dana ko def soldat yi réew mi am na nu ñuy doxe danañu ko lijjanti dëppale ko ci loolee dynastie Faye Sall di wax ci ne moom Macky Sall ak waa këram dañoo bëgg aki moo Sénégal Macky Sall nañu li mu bëgg moo di ñu lenn ngir lu am Macky Sall wax na ca mu ko ci juróom-ñaari at def ko ci juróomi at Macky Sall ci référendum la ko fas yéene jaar mooy koo xam ne lu mu diggee def ko day bàyyi ba waxtu yu jot rek mu waxtaan ceeg askan wi la Sénégal nañu mandat njiit réew mi mais bu ñu koy wàññi jële ko ci juróom-ñaari at def ko juróomi at Macky Sall gu référendum lay woote ngóor jigéen gi Barack Obama di woote ngir ñu daganal ko ci lenn ci réew Macky Sall ne loolee du ma sa am ci réewum Sénégal mbir ma waxtaane nañu ko ba féete na boor mi ngi ci suñu ginnaaw ak ngóor jigéen du ma sa dagan ci Sénégal le quotidien ak observateur tey tànn sa bu la neex la doore ko le quotidien mi xëy dalal waykat bii di Djiby Dramé journaliste yi quotidien yi laaj ko ne ko ñu bëri ñu ngi lay jiiñ ak ngóor jigéen li leen Djiby Dramé tont moo di ñi naan man Djiby Dramé ab góor jigéen la ñooñee duma leen blâmer ki jëra blâmer dëgg mi ngi ci observateur bil journal bi benn waay la boo xam ne M Ndiaye la tudd waajoojee dafa yàkkataan benn xale bu jigéen maanaam violé ko siif ko xale bu jigéen ba ma nga toll ci fukket ak ñaar ba ñu ko yóbboo ca kanamu yoon la mu wax moo di gone gu jigéen gi moo ubbi sama tuba yi jël loxoom jël samay bagage jëfandikoo ko waaye du man maa ko violé ñu di ko jaajëfal Mamadou Mouhamed Ndiaye ñi féetewoon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti euh, cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina dellusiwaat 19h ak 20h ak yeneen i xibaar jaa ngeen jëf ci ànd bi.